je m'appelle Simon Mané, j'habite le quartier Mourtois et je fais partie du collectif du quartier Mourtois. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour cette cérémonie solennelle qui a eu lieu dans ce quartier, euh, par le maire de la commune de Thiès-Ouest, en l'occurrence M. Alun Sow. Nous sommes très honorés ce jour euh, pour l'installation du nouveau délégué de quartier, ici présent, M. Abdoulaye Sambou. Euh, ah, nous savons que maintenant dans ce quartier, il euh, que nous allons engager ensemble avec toute la communauté, notamment pour essayer de trouver des solutions, mais avec euh, les autorités euh, en place. Vous pouvez constater que même pour accéder au quartier, il y a des travaux sur la voirie qui ont été entamés depuis euh, novembre 2017. Jusqu'ici, ces travaux n'évoluent pas. Et en ce moment, c'est l'hivernage qui va bientôt s'installer. Alors, si rien n'est fait situation un par rapport à l'accès dans le quartier. Le quartier aussi euh, d'un manque criard d'infrastructures socio-économiques de base, notamment pas, je veux parler d'un collège, d'un SEM, et d'un lycée, qui réduirait les distances que nos enfants parcourent pour aller vers euh, le SEM des HLM route de Mbour ou vers le collège Saint-Gabriel. Nous constatons aussi que nous sommes un peu éloignés du marché. Nos mamans sont obligées de faire de longues distances pour aller au marché. Nous souhaitons vraiment engager aussi ce chantier avec les partenaires pour pouvoir disposer d'un marché moderne dans le quartier. Mais un autre problème effectivement euh, connu de tous les euh, délégués de quartier de la commune de Thiès-Ouest, c'est l'absence totale d'un cimetière dans la localité. Nous enterrons tous nos morts de l'autre côté du quartier, aussi bien les chrétiens que les musulmans. Si vous allez dans le cimetière chrétien, aujourd'hui nous assistons à une pratique de superposition des corps. au niveau des tombes, ce qui n'est pas trop bien puisque le cimetière est entouré d'habitats. Vraiment, notre souhait, c'est de pouvoir obtenir un espace ici, euh, dans la localité, qui nous permet d'abriter un cimetière nettoyé pour les chrétiens et les musulmans. Ça, c'est notre souhait et nous en avons fait euh, un, document partagé avec les autorités sur place. Donc, il y a aussi le problème d'assainissement. Euh, vous voyez, la route en hivernage, on a beaucoup d'eau. les fosses septiques sont à l'intérieur des maisons. alors que c'est possible avec euh, les budgets de l'État et les projets futurs de nous brancher sur les canaux de l'ONAS. Et ça, c'est vraiment un élément aussi que nous voulons partager ici euh, pour vraiment offrir un cadre meilleur aux, aux de ce quartier euh, Pour le poste de police, certainement, vous avez besoin Oui, pour le poste de police, c'est un besoin réel qui est là, puisque la police la plus proche de, du quartier, c'est celle qui est aux parcelles Asseni. Et vous pouvez le constater après l'église, vous avez la forêt classée. Et donc, ce quartier est devenu une sorte de cible pour les malfaiteurs. Du coup, lorsque quelqu'un commet son forfait, il est facile pour lui de s'échapper parce qu'il suffit de se mouvoir vers la forêt classée pour ne plus être suivi. Notre souhait, c'est d'avoir une police de proximité à l'intérieur du quartier et cette police collaborera avec les riverains pour assurer une sécurité des biens et des personnes qui y vivent. Le problème d'eau, il est mais il demeure un puisque en termes de qualité, de quantité et d'obtention en permanence, le problème est toujours récurrent. Vous pouvez constater tout de suite là, quand vous irez ouvrir un robinet, vous allez constater qu'il qu est difficile d'avoir de l'eau. Donc c'est au petit soir qu'on peut toujours avoir de l'eau, quand bien même qu'on n'en a pas suffisamment, mais c'est meilleur que les années antérieures. Mais nous souhaitons vraiment, dans le cadre du contrat social qui Thiès. Euh, man Abdoul Aziz Diop euh, bokk ci collectif citoyen bu habitant Mbour 3 di sant yàlla bu baax vraiment tey ñu installé suñu nouveau délégué de karté monsieur Abdoulaye Sambou euh, mu jël léegi ci Souleymane Ndaw koo xam ni vraiment dafa dem def fi liggéey bu am solo yëkkati léegi jéggal ko ci coobareem. Mbour 3 nag xam nga acte 3 de la décentralisation dafa am sañ-sañ bu mu jox askan wi article 6 et 7 mooy participation citoyenne ñun nag xaarañu loolu pour jëmmal ko dañu def collectif boo xam ni jël saytu mbiru quartier bi euh, quartier bi nag yi nga xam ni tey moo gën a jàmp mooy benn bi gis ngeen voirie bi nga xam ni euh, boulevard bi ñu fi tàmbali depuis 2017 sa gis nañ ci yeneen gox-goxaan yi tàmbali na àgg na mais fii kenn xamul lu ko téye sa promoville lañ waxoon travaux yi ba léegi amuñu lu ko te poussière beeg nawet bi fi ñu toll dafa mujjoo nekk presque déeg beneen problème yi mooy Mbour 3 amul CM xale yi fii jàngee dañuy dem ba Sofraco dama jum HLM Route de Mbour moo gën a jege. lycée bi fi gën a jeg mooy lycée El Hadji Malick Sy ñu bëggoon comme mi ngi jëm dëkk baa ngi màgg jëm fi ak aéroport bi ak mbuurkat ñu am fi benn CM pour xale yi mën CM public am fi lycée beneen bi aussi mu gën a jàmp mooy mbiru cimetière parce que dañu gis que ni ku xalaat dund di nga xalaat dee c'est Thiès ku fi suuli fii kër ma dooki ngay dem wala nga dem kër maam alaaji cimetière catholique bi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk ba fees na ba dañuy tegalee néew yi donc ñu doon ñaan tey espace bi nga xam ne am na fa ak président wax na ni forêt déclassée bi euh, dafa am lu ñu ci déclassé ñu jël benn partie boo xam ni dañ koy def cimetière bii pour jullit yi bii pour catholique yi ndax koñ bi dafa am lu symbole église bi dafa jàkkaarloog jumaa ji gis ngeen léegi teewaayu abbé gis teewaayu imam noonu nag la ñu dëkkee loolu la ñu dëkkee si jàmm ak salaam mais xaaruñu aussi état bari na fi tey làmp yoo xam ne ñun ñooy cotiser suñu biir fu ñu gisee ampoule grillé na ñun ñooy cotiser quartier bi parce que dañu ni aussi euh, état mënul def lépp collectivité yi mënuñ def lépp mais li ci am solo mooy ànd si jàmm ak salaam problème mu bi rek moo ñu tax a jóg problème d' général sécurité bi tamit problème la parce que Mbour 3 dafa déggee forêt classée bi bari nañ fi ay jéey commencé am parce soo leen daaxee dañuy daw dugg si àll bi ñu soxla mel ni poste de police parce que ñu ngi def sax sécurité euh, de quartier boo xam ni vigilance citoyenne brigade mais dafa am loo xam ni état moo war a assurer la sécurité des citoyens et de leur biens donc yooyu daal mooy yi nga xam ni problème mu Mbour 3 ndox bi nag mi ngi am ay jéego ni meloon nañ année yële daaw jéego yooyu mi ngi wàññeeku mais ba léegi euh, léeg mu ñëw léeg-léeg du ñëw li ñu soxla mooy am ndox. parce que loolu lañ signé ak SDE 24 heures sur 24 mais ndox bu qualité aussi loolu daal mooy li nga xam ne mën nañ ko tënk euh, ci kii bëgg exemple bi am fii tamit yeneen quartier yi mën a def noonu maanaam am ay collectif citoyen à la base man donte le forum civil laa bokk mais fii laa yeewoo donc da am base boo xam ni si moom mii tey Vision la nekk donc quartier bi loolu mooy force bi ay ñoom Chérif Diagne bu ARD du ñu quartier alimentaire maanaam du ñu dem si maire mukk di fa laaj ceeb wala li ñuy def mooy indi xalaat ci nan mooy doxal dëkk bi lan mooy doxal quartier bi loolu mooy suñu taxawin jërë ngeen jëf. nekkoon na suñu engagement suñu liggéey léegi fukki at ñu ngi si ba léegi te yaakaar naa ne euh, nit ñi dinañ dégg pour ñu ñëw parce que ñun Mbour moo ñu soxa man dama foog ne Mbour 3 moo ma gënal bonnaa bi ñu ma wax. bon naa foofu laa juddoo foofu laa magee mais tey man waa Mbour 3 la te développement Mbour 3 bu amee man dinaa ko yëg sama doom yi yëg ko comme Simon li mu ko waxee eh, depuis dix ans ñu commencé fi reboisement ah si sant nañu garab yi bële mais lu ma gën a kii mooy Mbour 3 ko ne dafa xaajaloo am na ñoo xam ne teguñu seen bopp Mbour maa ngi wax waa Mbour 3 extension te wax nañu dëgg. parce que ñun dañuy ñun dañuy ne ñoom duñu ñëw ñun du ñu def ji dañ jël nañ décision que fu nit ku baax nekk nañ ko seeti waxtaan ak moom mu joxuñu comme maire lu mu ko waxee. on est en train de prendre des contacts pour quand même unifier tout le quartier Mbour 3 pour que chaque citoyen chaque habitant de Mbour 3 se sache concerné et qu'il soit informé de ce qu'on fait. Parce que temps, ce qu'on faisait, c'était. Euh, on était en taxi, mais on va élargir ce combat qu'on est en train de faire. Parce que autant, ce qu'on faisait, c'est nous dans nous. Mais on va prendre euh, l'Ouest. Surtout l'Ouest aussi, ils sont un peu pas dans les grandes grâces du quartier. Et aussi le Nord. Euh, vous savez, on jusqu'à l'hôtel Latijor. Hein, ce côté-là est un moment Land. Donc mon projet aujourd'hui, c'est de tous les citoyens, tous ce qui veulent travailler pour Mbourtois, donc à de se joindre à nous. on fera, on fera le port d'aller au contact physique des personne euh, surprendre parce que vous savez, un gouverneur qui venu ici, un ex-gouverneur. Mais c'est quelque chose. on veut faire des partenaires pour quand même être à un niveau. n'est pas à un niveau ou niveau 4, mais qui soit à un niveau acceptable par les. À peu près, vous faites combien d'habitants dans ce euh, Bon, on peut pas le Honnêtement, environ 1000 <laughs> ménages peut-être. 1000 ménages si on prend 1000 euh, ménages. Parce qu'il y a des données qui nous échappent. Merci. Merci.